asalaamaaleykum euh, waa Sénégal euh, yéen ñi nekk ci réew mi ak sénégalais yi nekk bitim réew euh, ma jël kàddu encore di waxtaan ak yéen ci situation bi nekk ci Sénégal démb ku ne gis na conclusion yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee ci seen dialogue national deal dialogue pourquoi parce que lañu fa doon waxtaanee jàpp nañu ne bu dee ne njëriñ Sénégal lañ doon waxtaanee war nañu jiital. jeunesse bu Sénégal kon képp lépp loo xam ne da nga koy def pour jeunesse boobu te jeunesse bi boole woo leen ca jàpp nañu looy def pour contre jeunesse boobu la te li xew ci palais de la république démb encore une fois Macky Sall dajale ay màggat yu xobidaas dajale ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamonoy Senghor ba léegi ñu ne dañuy waxtaane ëllëgu Sénégal kon ñun jeunesse bu Sénégal war nañu xoolaat suñu bopp ñun jeunesse bu senegal lañu ñu waxtaane foofu nekkut lenn loo xam ne njariñu senegal la moo tax gëm sa bopp ca njëlbeen nga lañu taxaw ne ñun dialogu Macky sàll boobu duñu ci dem duñu ci ànd ndax ku ne xam na ne système bi indi senegal ci musiba gi mu nekk système bi tax tey senegal bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna ñu am lépp luy teraanga lu yàlla di may réew waaye ñu ñàkk lépp ba bokk ci ñi gën a ndóol ci àdduna kenn yóbbewuñu ko lu mooy mag ñoo ñu toogoon démb palais de la république système boobu nga xam ne vous la jeunesse sénégalaise taxaw ngeen xeex ko système boobu nga xam ne moo nërmeel Sénégal te ñun ñëpp ñu ne système boobu faw mu jóge fi ñi doon waxtaan palais de la république système boobu la ñu fi bëgg perpétuer ngir mu continuer système boobu moo indi musiba moo indi ndóol moo indi jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund man biir na ma ne du Macky sàll ak complice am yooyu mu àndal démb ñoom ñooy régler suñuy problème parce que dañuy wax tout le temps ne ki la teg ay problème du kooku mooy doon solution bi kon solution bi yéen jeunesse su Sénégal mu ngi ci seen loxo ña toogoon démb di waxtaan palais de la république ñoom ñoo indi ndóol ci Sénégal ñoom ñoo jël suñu alal ñoom ñoo jël suñu suuf ñoom ñoo rocci lépp loo xam ne yaakaar la woon ci jeunesse bu Sénégal ña toogoon démb palais de la République de Senghor en passant par Abdou Diouf passant par Abdoulaye Wade ba ñii fi toog tey ñoom ña toogoon démb di waxtaan ñooñu ñoo jël alalu réew mi. ñoo jël suñu zircon ñoo jël suñu phosphate ñoo jël suñu or ñoo jël suñu marbre ñoo jël suñu fer ñoo jël suñu pétrole ñoo jël suñu gaz moo tax tey Sénégal nekk ci situation bii mu nekk moom Macky Sall taskatu yaakaar la parce que yaakaar lañu ñu moom Macky Sall daf ñu waxoon ne bu ñëwee dana dekkal yaakaar waaye ku ne gis na ne Macky Sall tas na yaakaar Macky Sall yoonu yàqute la teg senegal moo tax jamono ji suma xel mënul bañ a dem ci góorgóorlu yi suma xel mënul bañ a dem ci ñi nga xam ne dañuy taaba taaba suma xel mënul bañ a dem ci yéen borom kër yi nga xam ne jaxle ngeen tabaski bi ñaari fan moo ci des ñaata ci ay borom kër ba tey ji amuñu xar ñaata ci ay borom kër ba tey jii gisuñu buum pour mën a wuti xar waxuma la nag dund gu seer gi waxuma la soble kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la pombiteer kilo téeméer ak ñaar fukk waxuma la diwliñ litre mille huit cent francs nga war a dem ci fet say poos bënn amuloo dara ñoom ñi nekk ci gouvernement bi ñu ne am nañu avance tabaski ak seen salaire yi ñu leen fay Macky Sall Macky Sall sa waay jafe-jafe ak ndóol gi nekk ci réew mi yaa ko fi indi Sénégal gouvernement bi li muy liggéeyloo ci doomu aadama mille doomu aadama la mille personnes boo xoolee matul sax 1 pour cent de la population ñooñu boo leen joxee salaire fay leen seen salaire ñi ci privé bi góor góor lu ñoomit ba fay salaire. ñi am salaire ci Sénégal yépp boo ko boolee matul quatre cent cinquante mille te fukki million ci ay sénégalais ñooy jug saa su ne di taaba taaba di wut lu ñu yore seen njaboot waaw neuf millions cinq cent mille sénégalais yi des ñoom nu ñuy def ñoom ñoom fu ñuy amee xar ñoom ñoom kan moo leen di taxaw jamono jooju amoon nañu yaakaar ne président Macky Sall jafe-jafe yi réew mi jànkonteel yaa ngi xalaat nu nit ñi war a amee xar ñu nit ñi war a amee tabaski ngir seen xel dal njaboot yaa ngi tas famille yi ñu ngi tas doom mu ngi mbere baayam parce que gisul xar ñi am as néew sax li ñu am ci ay xar wala bu ñu jëndee xar daanaka mois de juillet bii di ñëw ci jafe-jafe yu tar la ñuy nekk imagineel ku am salaire cent 300000 nga jënde xar 125000 wala mille fay sa location cent vingt cinq mille wala cent cinquante mille waaye léegi nooy yore sa njaboot ci weeru juillet bii di ñëw noo leen di dundale est-ce que di nga taxawu sa papa est-ce que di nga taxawu sa yaay jafe-jafe yooyu Macky Sall moo ko indi ci réew mi kon balaa ñuy waxtaanee waxu conclusion ay dialogue dialogue boo xam ne biir nañu ñun ñëpp ne dialogue gu dóor la biir nañu ñun ñëpp ne jaloog la boo xam ne daju ci jublu. seet nu ñu def dong ak complicité benn classe politique dialogue boo xam ne li leen intéressé woon moom Macky Sall ak ñam àndal du dara lu may lewal ci dal ak jàmm troisième mandat moo tax troisième mandat boobu bi ñu koy def moom président Macky Sall fexe na ba ànd ak ñoo xam ne dañuy yoonal li mu bëgg mu di la société civile cette société civile justement parlons-en cette société civile politique société civile bii nga xam ne Macky Sall la ñu fi nekkal société civile bii wax ne dañuy wax ci turu askan wi te ñoom seen bopp la ñu fi nekkal Macky Sall société civile boobu la àndal ñu naan ko sa troisième mandat fexeel yóbbu ko conseil constitutionnel yéen bir na leen ne yéen sénégal yi troisième mandat bu Macky Sall bu demee conseil constitutionnel day mel ni lettre ca post bu ñëwee dañu koy bàyyi mu jàll pourquoi parce que ñu nekk conseil constitutionnel ak ña toog démb di waxtaan ñoo bokk seen genn màndargay ay màggat yu xobidaas yoo xam ne makki sàll moo leen repêché bàyyi leen ci conseil constitutionnel yëkkati xaalis di leen jox taxawu leen waaw ku la abali gët nga xool fi ko neex kon c'est clair que conseil constitutionnel boobu du moom moom mooy rejeté troisième mandat bu Macky Sall kon société civile boobu nga xam ne yàgg naa wax ne société civile la bu Macky Sall société civile la boo xam ne li leen intéressé du lenn lu mooy seen bopp société civile boobu la Macky Sall utiliser ci dialogue politique bi ngir nee naay troisième mandat wam ñu yóbbu ko waxtaanee ko conseil constitutionnel liñ ci jublu mooy fii ak boobu ñépp ànd ak dal ne dañuy déglu conseil constitutionnel mais ñoom xam na ne ñun sénégalais yi gëmuñu conseil constitutionnel ñun sénégalais yi gëmuñu société civile boobu parce que bu ngeen fàttalikoo waxoon naa leen ko ci parrainage bi nee naa leen société civile boobu ñoo nekk ci ginnaaw parrainage bi Macky Sall di def parce que ñooy taxaw naan dañuy wax dañuy féete njaaxaanaay du dëgg c'est des gens qui sont avec Macky Sall c'est des gens qui cautionnent les deals de Macky Sall Et c'est exactement ce qu'ils ont fait lors de ce dialogue national. Et c'est ce qu'ils continueront de faire parce que yëfu parrainage pa dañu wax ne dañu koy sopparñi yenn saa yi sax nga dégg ñu naan la wuy buggaan waxu parrainage il faut nga dem waxtaan ci pour que bu keroogee nga jàll dama ne bàyyi leen ma di ma wax waxu parrainage man ak parrainage ou sans parrainage benn objectif laa am mooy xeex pour Macky Sall jóge fi man Bougane awma fixation ci nekk président de la république déedéet na sénégal yi mën a dund ci ngor dund ci dal dund ci jàmm bu ñu yeggee ci tabaski nit ñi mën a tabaski ak jàmm waaye di dem ci tabaski sa xel dalul muy jaamu yàlla tey jii ñi war a dem ci tabaski ñépp am nañu jafe-jafe am nañu problème lu ñu mënoon mënatuñu ko waaye nag maa ngi leen di dalal yéen góorgóorlu yi yéen borom kër yi yéen wéyjur yi maa ngi leen di wax ngeen dal te muñ rek parce que Macky sàll bii mooy tabaskeem bu mujj en tant que président de la république te biir nañu ñun ne nu taxaw jàkkaarloog moom parce que la doon waxtaanee ca palais de la république ay caaxaan la nooy waxtaanee ëllëgu Sénégal te waxtaanee woo suñu alal. nay waxtaane ëllëgu senegal te te waxtaanewuloo suñu ay milliards yi ñu sàcc bi ci mujj di milliardu Covid bi rapport bi ne fànn ñëpp gis ko nooy waxtaanee ëllëgu senegal te doo ca boole loolu kon lii Macky sàll di def ci fooye alalu réew mi day interpeller kenn ku nekk ci yéen pour ngeen jóg taxaw parce que nag alal bi seen alal la te bu ngeen gisee ku nar a yàq alalu réew mi dafay jaadu kenn ku nekk takk ndiggam jàkkaarlook ñoom bu matee defante ko ñu defante ko ak ñoom ba mu mat ba mu saf sàpp conclusion yi nga xam ne def nañu ko ci jaloog bi biir na leen ni yéen ñëpp Macky Sall boolew ci jeunesse su Sénégal pourquoi parce que Macky sàll doyloowul nawul jeunesse bu Sénégal waaye nag mbejum kanam borom moom moo koy fajal boppam jàpp leen ne jeunesse bu Sénégal dañu soxla. yaakaar espoir tey jii ñi taxaw ngir nekk jeunesse su Sénégal boobu Macky sàll ak ñi mu àndal ñu ngi jóg pour lijjanti leen ngir fitnaal leen ngir xoj leen ngir ngir xoñoñal leen benn tàmbalee ci man mi ana ma deful suma alal nërmeel nañ ko sumay liggéeyukaay. su may këru liggéeyukaay su may collaborateurs des centaines et des centaines de collaborateurs yóbbu nañu leen ci chômage déggoon ngeen temps yooyu ñuy wax naan wuy manipuler ay nit sax naan leen wuy buggaan dafa yore nit ay xaalis ci jooni jooni ñoo mun a fen bañ koy wax ak léegi da ngeen mus a gis benn procès bu am bu jëm ci man ci mbiru jooni jooni jooni jooni dama àndoon ak ay jeune sénégalais ñu liggéey liggéey bu xarañ liggéey boo xam ne tubaab yi dañ doon jóge Amérique jóge fépp ñëw di xool modelu jooni jooni tey ci seen bon ci seen tële ci seen iñaan ci seen iñeñeti fexe nañu ba nërmeel jooni jooni mun ngeen a nërmeel jooni jooni mais xel yi defar jooni jooni mu ngi fii ci suma bopp bi dara du ko dindi liggéey bi ñu def ci Sénégal ngir jeunesse su Sénégal mun a am ci lu ñu jàpp ngir jeunesse su Sénégal mun a taxaw man Bougane ak ñi ma àndal ci yoon woowu la ñu nekkoon waaye parce que ànduñu ak Macky sàll parce que ñu bokk ak sàcc yi ñu bokk ak ñi randal alalu réew mi ñu bokk ak ñi muucu deretu askan wi kon il faut ñu xeex ñu ñun ñi nga xam ne dañu bokk ci ñu représenter espoiru jeunesse Sénégal tey jii ani Ousmane Sonko ñu ngi koy fexeel ñu ngi koy trainer dans la boue ñu ngi koy dénigrer. dugal ko ci kaso ci biir këram mënta dugg mënta génn et pourtant amul benn dogal boo xam ne justifié na ko loolu kenn ku nekk ci ñun daf koy interpeller kon jot na pour que les sénégalais ñu xam ne ñii fi ne seen bopp moom moo leen yitteel au même moment ñiy sàcc alalu réew mi ñi randal alalu réew mi ñi nga xam ne rapport daf leen a épinglé fii ci Sénégal ñu ngi doxi seen soxla loolu mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey gi am ci réew mi kon may fàttali rek ne tabaski bi li ci des bariwul ci jamono jooju maa ngi xalaat doomu Sénégal yi dëkk ci sud du pays notamment en Casamance pourquoi ma leen di xalaat parce que tabaski nit ñi dañuy dellu ci seen njaboot diggante Sédhiou Kolda rawatina nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région bu ñoo ñu war a dellu si seen i njaboot maa ngi leen di xalaat dama leen di xalaat parce que tey jii commune bu mel ni Ziguinchor dañ ko couper du reste du pays pourquoi parce que tout simplement dañuy xeex benn nit boo xam ne doomu Ziguinchor la ñu ne benn nit kooku moom fawuñu teg askanu Ziguinchor loo xam ne danañu xam ne seen doom moom moo leen ko teg il faut savoir raison garder Sénégal suñu Sénégal la waruñu nangu loolu tey jii amul avion buy wàcc commune Ziguinchor parce que aéroport ba dañ ko tëj neneen dañuy liggéey ndakaar dem dikk dematul Ziguinchor dematul binjoo na alors kon nag ku ne xam na ne li ñu ci jublu mooy fat ñu dëkk Ziguinchor semaine passée laa jóge diggante Tooboor ak seno ba boo jógee jugee na jaar euh, Jakunda jaar euh, Bukari jaar Ulampan jaar Mampalago jaar Wandifa jaar Touba Mouride ñëw ba Senoba 160 kilomètres la 160 kilomètres yooyu daw ci 5 heures d'horloge 5 ngay daw 160 kilomètres moo tax sama xel dem. ci suma mbokk Casamance yi war a dellu dem tabaski ji tey jii kenn ku nekk ci Sénégal interpellé nañu la parce que président Macky Sall indi na fitna ci Sénégal fitna googu moo tax mu jël ay nit yu deful dara yoo xam ne seen toor rek mooy wax ne d'accorduñu ci li muy def tey woote ñëpp jóg taxaw pour defante ak Macky Sall ku ko wax ci ñu dégg la ku ko wax ci sa biir nekk ku ko wax ci sa biir kër xamal ne li am importance mooy taxawaay bi ñu ne dañ ko war a taxaw pour Sénégal ci loolu la tëj kaso ku mel ni Kaba bu bu Parcelles Assainies ci la ñu tëj kaso ki nga xam ne moom moo di Karim Xurum Xaq ci la ñu tëj kaso Cheikh Oumar Diagne ci la ñu tëj kaso professeur Bouna kone nga xam ne ci lycée bu Gassane la nekk fële ci département bu Linguère ci la ñu tëj kaso Falilou kayta ci lañu tëj kaso Bassirou Diomaye ci lañu tëj kaso Oustaz Assane bu Sen TV ci la ñu tëj kaso Baara Ndiaye bu Walfadjri ci lañu tëj kaso Modou Ndiaye bu Bambey TV pourquoi parce que tout simplement ànduñu ak Macky Sall la liste elle est longue mënoon nañ fi nekk di lim bari na toll nañ ci juróomi téeméeri nit yoo xam ne Macky Sall doxalinu buur moom buur Saalum jël nit ñi tëj ci kaso bi pourquoi parce que bëgg na nërmeel ay nit ñu jàkkaarlook moom ne ko doo fi defee troisième mandat y pas de problème danañu taxaw danañu jàkkaarlook moom boobaak léegi ñu ngi ñuy wax ay force occulte naan ñu ay nit dañoo jóge bitim réew ñëw di dal ci kaw Sénégal kenn ci ñoom mësta leeral loolu ñuy wax mais li biir benn force rek moo fi nekk benn force bu bon rek moo nekk Sénégal benn force bu ay gaf rek moo nekk Sénégal benn force bu pataa rek moo nekk Sénégal mooy moom Macky Sall te li muy def biir na leen ni yéen ñëpp ne waa France ñoom ñoo ko ngemb France ñoo ngemb Macky Sall moo tax mu am sañ-sañu def li muy def c'est pourquoi il faut interpeller le président Macron arme ay ngànnaay dañu jël ay balu fetal balu fetal benn ñaar ñett ba muy million ak juróom ñaari téeméer junni sept millions sept cent mille balu fetal la waa France livré palais de la République bu Sénégal ay armes ministère des forces armées moo koy jënd ci réew mu normal ay armes kenn du ko livré palais de la République Juan Branco avocat boobu wax na ci moo tax nag ñuy interpeller waa France parce que complice lañu ci li Macky Sall di def arme yooyu Juan Branco doon wax arme yooyu moom lañu jox ay nervi ay wuyu ay sambaboy ay nit ñu tekkiwul dara ñu jël leen jox leen ay oto jox leen ay ngànnaay ñuy tiire ci suñuy doom ñaar fukki nit dee nañu ci kenn waxu ci dara moo tax ngay dégg yenn saa ñu naan wuy tribunal pénal international est-ce que am na njariñ wuy am na njariñ yéen li ngeen ciy wax moo tax ngeen xam ne am na njariñ 2021 ci coowu Adji Sarr 14 personnes yi ñu rey ñu ci ëpp ci ñoom man sol naa suma dàll dem ba ci seen kër lan la ñu def ci ñooñu est-ce que dafa am enquête est-ce que dañu ubbi enquête est-ce que dañu wax ne ubbi nañu enquête commission bañ ca waxoon ana ku leen gis ana ku gis ñu bokk ci commission boobu ma ne làmmiñ bu waxul dëgg wax fen dégg naa ministre des affaires étrangères en fait des affaires étranges j'allais dire Aïssata Tall Sall dem toog ci télé tubaab yi force de defence et de sécurité yi dañ doon def légitime défense moo tax ñu tiire ci population bi cim du ngeen rus ci biir Sénégal ngeen wax ñu ne ay ñeneen nit ñu tiiree ci popula ci euh, booy ñi ñi faatu ngeen dem toog ak tubaab yi di lay naan Sénégal force de sécurité yi dañ nekkoon ci légitime défense réew kenn du ko yor ci ay fen réew kenn du ko yor ci ay caaxaan dañu waxante dëgg moom président Macky Sall dem na toog ànd ak. ñamu àndal naan bu ngeen bëggee troisième mandat bi ma bàyyi ko da ngeen ma koy ñaan ci njekk lu ñu lay ñaan loo xam ne yow dañ la ko jox dénk la ko moomoo ko lu ñu lay ñaan am na loo xam ne président Macky Sall bew la am na loo xam ne teg sa bopp foo yeggul la réew mi ñoo la fal li nga doon Sénégal la noo mel Sénégal la population bi ñoo jël seen yaakaar tegoon ko ci yow am yaakaar ci yow nga ñëw teg ci yoonu yàqu tey tey jii booy boo nga xam ne pare nañu te lépp lu mu la jaral ngir yàq réew mi non ñun danañu ko jaral ñu defar réew mi bi nga demee France da nga ne di nga maintenir ci pouvoir bi nos réalisation nous permettent danu nous maintenir au pouvoir nga ñëw bërki démb dajale sa ay pa ku nekk yor yatam ngay gëriyee gëriyeelu naan je vais prendre ma décision je l'expliquerai et je l'assumerai tu n'es pas courageux da nga ragal mbaxat nga parce que boo du toon mbaxat dangay wax ne da ngay def troisième mandat mais boo wóor na leen ne yow boo waxee sénégalais yi ne da ngay def troisième mandat non yàpp boobu ñu doon lekk ci tabaski danañ ko bàyyi jëm si sa kaw parce que ci sa kaw la ñuy teggee et je suis certain que tu as compris ça que xam naa la danga ragal ragal nga kon nga xam ne sénégalais yi déterminé nañu on est déterminé et on fera face bu la neexee jëlal sa ay nervi jox leen ay ngànnaay génneel xaalis ci réew mi jëlal sa gendarmerie génneel police mais boo tuddee ne di nga def troisième mandat non bu boobaa di nga xam ne sénégalais yi pare nañu pour jëflante ak yow te noo loo ci bañul rek incha allahu rabbi bu boobaa ñun tamit bañuñu ko ci kon nga comprendre ne ñun li ñu bëgg mooy réew mu ànd ak dal réewu Sénégal bu àndul ak troisième mandat li ñu bëgg mooy Sénégal bu amatul Macky Sall ak ñooñu nga xam ne dañoo ànd ak moom di muucu deretu askan wi li ñu bëgg mooy république bu Sénégal jëm ca kanam li ñu bëgg mooy nit ñi feetu feetu tabaski ci dal ak ci jàmm suma xel ba tey mu ngi jëm ci borom kër yi nga xam ne suma xol bu ma leen di xalaat damay am lu ma metti lool suma xel day dem ci jeune bi am yaakaar ci jeune bi nga xam ne waajuram njabootam yaakaaru xar ci moom tey jii moom jeune boobu mu jaaxle lool moom parent boobu mu jaaxle lool moom njaboot boobu mu jaaxle lool te situation bii mu nekk kenn tegu ko ko lu mooy ñu jël réew mi di ko paccoo ñu jël réew mi di ko fooye ñu jël réew mi def ko seen alalu bopp jël réew mi def ko kër di fooye alalu réew mi di fooye alalu Sénégal mais nañu xam ne population bi pare nañu Sénégal moo ëpp alal France moo ëpp alal Italie li ñu am ci alal ñooñu amuñu ko mais jël nañu suñu alal fooye ko ba tey jii Sénégal bokk ci réew yi gën a ndóol ci àdduna dara teguñu ko lu yal na yàlla def dal ci réew mi yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla dimbali ñu ñun ñépp ba ñu paase tabaski bu neex tabaski boo xam ne kenn du ko gaaw a fàtte c'est clair duñu ko gaaw a fàtte ci métit gi c'est clair parce que tabaski bii bu ngeen ko waxee bu ngeen ko waxul dana métti waaye jàpp leen ne mooy tabaski bu mujj ci président Macky Sall kon waay waaye président Macky Sall comme réew mi yaa leen teg ci situation bi ñu nekk bisu tabaski boo rendee sa xar ba pare jëlal beneen xar teg ko rendi ko jagleel ko yóbbaale ci ñi nga xam ne amuñu tabaski ren ji te kenn tegu leen ko ku may yow jërë ngeen jëf merci jërë ngeen